waaw constitution moo gën charte moo gën a kawe charte de la transition bi te constitution bi tere ko mu bañ a bokk ces histoires là mhm. moo tax coup d'état yàlla na ci yàlla musal ah, bu ngeen ci xasee mhm. fi nga xamante ne moo di Sénégal suñu fi nekkoon ministre de la justice daal dinay àddu ci li nga xamante ne moo di eh, élection législative yi ñu génn te ñu amaloon ko le 17 novembre mu mel ni daal gis nañ ne wala sax moom jàpp na moom Ismaïla Madior Fall ne victoire bi nga xamante ne eh, Pastef am na ko daanaka Sénégal moo ko am parce que dafa jàpp ne daal sénégalais yi ñoo leen voté itam sénégalais yi ñoo taamu ñi nga xamante ne ñoo féete ci nguur gi waral ñu daal di leen euh, joxaat seeni baat nga ñu am majorité euh, fële ca assemblée nationale donc bu ñu dégloo waxam bu baax a baax dafa bëgg a wax ne euh, seul le peuple est souverain Moustapha. Mm-hmm. seul le peuple est souverain comme ni nga ko waxee noonu la noonu noonu noonu la amee sax. Mhm. Euh, xam nga dafa ko ku may laaj léegi Choguel Maïga lu mu def. xam naa dafa rat dafa ah. raté debaa bi ah. le 16 dañ doon feete seen anniversaire bi nga mhm. xamante ne l'armée bi jëlaatoon na. ki mhm. euh, Kidal ci loxoy way fippuy léegi nag bi ñu koy def ci la jël kàddu mhm. euh, mu daal di interpeller euh, le président de de la transition mooy euh, Assimi Goïta mhm. ne ko kañ la ñuy dem élection parce que dàqoon nañ fi élection yi normalement mu ne transition bi le 24 mhm. mars bi la waroon a jeex ñu dàq élection yóbbu ko février ba se ak ñu dàqaat ko février joxewu ñu date mooy leen nag faw ngeen joxe date ñëw tamit ñaawlu dàq bi ñu dàq élection bi te ñu yëgee ko ci presse bi ñu xëy tey ñu dàq ko donc loolu moo waral wax yooyu mu kàddu jëmale ko démissionné wul dañ ko dàq démissionné wul dañ ko mhm. dàq mhm. kàddu yu mu yëkkati jëmale ko avant moo démissionné suñu bëri doon nañ ko wane ko démissionné ñu bëri mhm. amoon nay appel yu bëri ñu doon xëcc ce qui est sûr mooy yàgg nañ ko buux ci suuf pour mu démissionné mu lànk après si la si lañ liir sànq si ngoon Euh, benn communiqué ne Choguel Maïga a été démis de ses fonctions. Mhm. loolu moo nekkoon ab bi ñu doon def ci sous région bi. Mhm. Euh, ca rawatina ca Mali. Mhm. acca euh, ñu ñëw. voilà ci Ismaïla Madior Fall très naa man très rapidement. léegi mooy posé parce que lu xam lan moo tax temps bi nga waroon wax da nga ko wax les internet yi ni ngeen bëyal yomb léegi bu ngeen ñëwee tardé du ngeen pousse bi direct ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ils sont les rois waaw ñoom ñooy chefs yi moo tax man su ma gisee benn benn commentaire exactement interpolitique dama ci dama ciy dellu ginnaaw ñoom rek la ñuy topp voilà ñoom la ñuy topp voilà mhm. Ismaïla Madior liir naa textam bi mhm. waaye ci biir texte bi dama ci sentir benn aveu maanaam dafa waxaale ne tey jii am na yoo xamante ne war nañ koo jooyanti parce que guléet ñu am benn nit boo xamante ne tey jii euh, mooy moo moo nekk premier ministre mhm. gagné élection yi te jaaroo ci président de la république xam nga élection législative boo ko mësaan gis président de la république boo gis président de la moo ko daan gagné. culture politique la oui Mohamed bi muy gagné euh, mbir yu président de la République lay présenté tant que président ngay demee. Mhm. Mimi bien vrai que euh, c' une majorité très étriquée de courte tête waaye euh, teewul majorité la woon waaye danga nga ciy gis ne mbir yu Macky Sall la gàddu woon. Mhm. mu ne guléet ñu koy am donc pour man loolu benn aveu boo xam ne dafay wane ne kon ñoom xam nañ ne ñoo dugal mbir mi ci benn incohérence entre guillemets boo xamante ni seen i loxo la jaar xam nga lu ma wax tey jii su fekkente ne dañoo bàyyi Ousmane Sonko bañ koo tegal ay ndëgg sërëx bañ koo galgal par force parce que dem nañ ba xam ne mbiri Adji Sarr mënu koo kale ñu ne duñ ci yem ñu jaaree ko foofu indi dossier Mame Mbaye Niang bi hmm. teg ko ci table bi récupérer ko te boobu dañ koo parax-paraxee am condamnation définitive pour écarter Ousmane Sonko Ousmane Sonko indi leen Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye gagné élection yi def ko son premier ministre ne kon guléet ñu doole mais loolu bu amee à qui ñoom ñoom ñoo ñu dugal ci situation bi ñu nekk nii mhm. léegi kon ñoom bu ñu bëggee wëlbatiku naan nañu xool yan schéma la ñuy def ma nangam ak nangam pour mën a réformer ak nangam ak nangam euh, malheureusement euh, xam nga bokk na Ismaïla Madior bi ngay gis ni ami mhm, mhm. bokk na si ñi xamante ne ci expérience parlementaire wala connaissance bëri na dëkk yoo xamante ne fii ci sous région bi seen constitution bañ koy defaraat wala bañ koy jonti dañuy woo Ismaïla Madior maanaam mën naa ne ci déndu Afrique bi nii ñu ko fi ëpp xam-xam ci wàllum droit ëppul Mhm. mais malheureusement malheureusement malheureusement Macky day suul ndaanaan si suu Macky Sall lañ ko gisee Macky Sall transformé ko benn tailleur mu ne tailleur de haute couture la mën na ko déet yow kay tailleuru koñ nga wala ñoon di gàddu seen machine yi parce que li mu doon ñaw ñëpp d'accord nañ ne ñaw bii baaxul. ñawul de mais jàpp nit ki contumace mun nañu. dafa jël mesure mais ñawul. Ah. mesure rek la doon jàpp. gis nga fu fu mu ko dugal après. Mhm. moo indi situation bi ñu nekk nii après pour man texte boobu aveu la Mhm. parce que dafay wane ne ah ñun kat parce que situation bi nekk ni ñoom la de parce que bu doon askanu Sénégal kese kese kese kese Ousmane Sonko moo doon seen président de la République bu doon askanu Sénégal kese Bassirou Diomaye Faye du nekk président de la République parce que Ousmane Sonko la ñu jëloon def si moom yaakaar ne moo porté projet bi moo projet moom la ñu yóbbu palais ñoom ñu toog si palais ba moom ñu ne Ousmane Sonko du yëg si ku ko jege du yëg si donc seen surprise ak seen déception du mooy lan Bassirou Diomaye Faye mi candidature loolu mooy di am. léegi nag situation bi ñuy dund nii ñëpp ñoom dañ ci am part de responsabilité. tey jii boo toogee ñu naan laan le premier ministre dualité au sommet de l'État premier ministre moo ëpp doole président premier ministre day gêner le président de la république loolu lépp ñoom la. mu ngi créé dualité loolu lépp ñoom la. Mm-hmm. te malheureusement Tëngéej jéem na fa jéemati mënu faa gañe dara. essayé na ko teg mënu munu faa gañe dara gis nga am na ñoo xamante ne du ñu ay homme politique. Macky Sall jéem ne la ne te loolu boo xoolee Eva Marie Coll Seck Macky doon doon na ko si jéem a buux benn moment Eva Marie Coll nga xamante ne wàllum santé kenn sutu ko ci fii ci fii fii ci Sénégal wàllum santé mais Macky ndaanaan nañ fi suul na dama sax suul bëri na mais moom heureusement am na chance sax mu daal di parce que amoon na benn moment gars naan Eva Marie Coll Médina di ko buux Médina bi moom mi ngi Médina Seydi Gueye mi ngi Médina Youssou Ndour mi ngi Médina di ko compter ci leaderu euh, APR yi nga xamante ne ñoo nekk Médina ba bëgg ko përxal ci biir ci biir politique bi mais heureusement mu am chance teel a waat daw mais malheureusement Ismaïla Madior wutul kii boobu jéem na faa bokk élection locale jéem na faa bokk élection législative lu nekk dugg na ci yoo xamante ne jaru ko woon euh, mu jaral ko mu dem di dugg ci ay affaires yoo xamante ne malheureusement tey jii bokk na si ñi nga xamante ne bu ñu fàttaliku wala bu ñuy bind seen tur euh, ci histoire reñu Macky Sall wax dëgg yàlla bu ñu ko bindee bu ñu tuddee Ismaïla Madior kenn du jóg tàccu kenn du jóg tàccu te euh, wax dëgg yàlla nit la ku am xam mais euh, dem na ànd ak euh, Macky Sall ñu bokk di euh, def la ñuy def jaarale ko ci droit di weñ loxoy droit bi di ko interpréter nu mu ko neexee jàpp nit ki ba noppi ne maa ngi koy wër bu ñu la posé yenn question yi nga ne bii mooy deuxième mandat am nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs répété que trois fois ne je dis bien nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Macky Sall def deux mandats yooyu ñu invité la ne loo wax ci troisième mandat bi nga ne en principe bii mooy deuxième commencé dugg ci yoo xamante ne. te moom dégg naa bu doon def euh, ay euh, cours da gis ne ñëpp dañuy ñëw assister cours bi ndax mhm. richesse bi nga xamante ne cours bi daf ko doon am. xam nga ñooñu pour man waruñoo nangu ñu leen di dugal ci li nga xamante ne mooy di mbirum politique. mais Macky Sall day suul ndaanaan wax naa la ko léegi. Mhm. day suul ndaanaan parce que am na ñoo xamante ne tey ci euh, heure bi waroon na fekk a Madior Sénégal gis nga comme professeur Babacar Gueye bi nga xamante ne tey ji bu ñu doon jooyantiwaat suñu constitution ki mel mënoo fexe fexe ba doo ko woo mu ñëw toog mhm. noonu la waroon naa nekk Sénégal nekk benn genre consultant boo xamante ne même bu la Macky Sall bëggoo def loo yenn yi da ngay lànk nga bañ mhm. mais xoolal bi bi mu bëggaatee jàkkaarloo ak ñu Ousmane Sonko mais daf kaa jëli waat defaat ko ministre de la justice mhm. yaa ngi yaa ngi xool li ma la wax ba mu demee benn moment daf ko indoon ministre mais bu mu bëggee jàkkaaroog Ousmane Sonko ñoom contumace dossier Adji Sarr bi dossier Mame Mbaye Niang daa jëloon indiwaat ko mu toog bu affaire kii yooyu mooy génn def conférence de presse bi mooy génn indi formule droit yi def ñi lëndëmal nit ñi wëlbatiku def it yëpp jaru ko woon tey ji ana Macky Sall dem na moom anamu léegi bu delloo université maa ngi gisoon fan yële passé ñu bindoon dañ ko bëggoon a yóbbu fale IFAN gars yi daal taxaw xataraay na du dem IFAN parce tamit déedéet moo ko somboon na delluwaat ci anf ja jàkkaarloog étudiants yi lu ko fi jar lu ko fi jar Macky Sall dem na bàyyi na leen fi mhm. léegi bu génnee di wax ku nekk da koy liir boo ko liiree reetaan wala nga liir ko sëgg te pourtant day xam-xam kenn ëpp ko fi mhm. mais malheureusement Macky Sall euh, na euh, te yóbbaale na ko euh, loolu rek mooy li ci li ci li ci déplorable. Mm-hmm. voilà ñu daal di wax euh, ci euh, mbir mu doy mi nga xamante ne xew na ci littoral bi ñu gis ne état du Sénégal am bien yu bëri yoo xamante ne moom na ko te ko saamoon ci mbedd wala sax ñu am ay nit yoo xam dañ leen ko jagleloon état du Sénégal daal dina koy nangu ku ci mel ni Ron Yefet nga xamante ne Isra homme d'affaires israélien la moom nag dañ ko daal di euh, joxoon lu toll ci dix mille mètres carrés fële nga xamante ne moo di ca Fann résidence mbir moomu nag état du Sénégal mu ngay ut ay jéego naka lay topp toppee euh, le waaye sax